xale yi tey dañoo manqué culture politique waaw ak culture historique ñaari mag ñoo xare laale ñaari yoon ba ku ne jaare ci xam sa bopp ñu wax ne dañuy juboo ngeen jóge fële lagg fële ne du fi ame ne du fi amee fu ngeen ko teg xanaa bu ay nit jotee ba mu yàgg ñu ne jàmm lañ bëgg ci réew mi jàmm lañ bëgg ci suñu bopp ngeen encouragé leen waaye li kenn xamul lu mu doon waaw Lamine Gueye dafa xeex ak Senghor dax ko Osifio ñu jote jote bu metti waaye dañoo mujj juboo woykat yi woy leen dëkk bi am jàmm nit ñi kontaan waaw ah, Mamadou Dia Senghor bàyyi na ko ci kaso kaso bi ba mu mujj silmaxa du gis keroog bi mu génnee ci kaso bi ndeysaan dafa ne baal naa Senghor te bu ma woowee léegi léegi léegi ma wuyu ko ab lay wat première fois mu dem prison ci 1984 dafa génn rek dem seeti juuf Diouf ngin bi mu ko fa fekkee mook Jean Collin ñu toog kooku ne ko sa bakkan mu ne ko loolu du dara Sénégal la ma ñor te Sénégal la ëpp solo xoolal loolu léegi ay nit ñoo xam ne dañ daan ànd nekkoon ay frère bokk parti mujj xuloo mujj juboo ngeen ne du fi amee loolu mooy lan fu ngeen ko teg waaw fu ngeen ko teg di indi waxu démb waxu nit ku mer nit ku mer wax après juboo wax lu ci ni lan moo ci ne ah lan moo ci ne xam nga waxu démb bu doon waxu démb rek benn saaba yonent bi du dem aljana xamoo ne te benn bokkam du dem aljana parce que ku ci nekk xeex nga ko wax nga ko lu bon laata ngay dugg ci lislaam bu ñu doon seet sa waxu démb ñu ne lan wax waxeet du nekk fi musulman du fi nekk jullit loolu moo am Khalid ibn al Walid xaw naa rey yonent bi ci Uhud daf ko dóor buukul kooku bët kanam ngi toj mu daan saaba yi ne deena sunu yonent deena bi yàlla décidé jubale leen daf leen jubale kooku masta am defet yonent bi mujj ne Khalid ibn al Walid mooy xeeju lislaam bon nag juboo moo gën ci réew mi dañ ko war a accompagner nangu ko te xam ne yu ñuy wax ni waxi xanaa xanaa xale boobu wax ne dañuy fusiller Ablaye Wade mu mujj ëlbatiku ne day ànd ak Ablaye Wade alliance kon lu ñu koy wax mu wax ne day fusiller du Diouf mu wax ne gàmmu mënu fee am kooku lu ñu koy considérer kon dañu koy jàppe ci waxam du ñu jàpp ne rek xamul lu muy wax waaye lañu koy jàppe ci wax yi mu wax bu nu ko jàppe woon ci wax yi mu wax génne ko Sénégal parce que fii am na ñoo xam ne ñu ngi fi kenn masta xalaat fusiller Abdou Diouf wala fusiller Ablaye wat wala tere fi gàmmu nga xam ne 1902 la ñu ko commencé ci réew mi bon nag nanu gën a góorgóorlu xam ne lii doxinu jamono la te lu gën ci réew mi la waaw yàlla sax nag boo ko doon seet ci wax waxeet nga jàpp ko ci nga daan ko ci moo ñu ne safara dina fees mu dem ba mu yàgg mu nañu bu ngeen xamoon sama yërmande kenn kon kenn duma jàmm moo ko wax moo ne wàññi sàngara si di leen ko naan waaye naan leen dànk moo dem ba mu yàgg mu ne jullit yi bu leen naan sàngara bu kenn naanati tokki sàngara ndax boisson seytaan la noonu la àddina demee ñun nag seen cheikh Ahmad Tijani Al dafa am lu munu jàngal nañu bu xeex jotee bu leen kenn daxa xeex waaw waaye bu juboo jotee yi tamit defar jot bu leen kenn ndax def defar te ci loolu la nuy woy ci loolu la ñu ne Idrissa nag dafa jëbbalu ci mouridisme waaw ndigal tënk ko ndiggalu sëriñam tënk ko bu ko woowee ne ko da ngaa war a dox jàmm jubóog Macky Sall ndax mooy lii gën ci réew mi manu nag manuta gàntu sëñ Moussa Nawal manuta gàntu sëñ taxa bon nag bàyyi leen jàmbur bàyyi leen jàmbur bàyyi leen jàmbur loolu la